Euh, question euh, d'actualité la euh, boo nu ko maye muy polémique bi am récemment ci interdiction màggal liée ak soxna Aïda Diallo yéen à votre niveau en tant que chargé de la communication ak culture lu jëm ci màggal gi tey lan mooy seen njàngat ci situation boobu. non non ñun kooku amuñ ci benn njàngat donc ñun ñun ñun doomi sëriñ bi lañu di taalibe bi sëriñ bi di déglu ndigalu sëriñ bi sëriñ bi ci communication màggal la ñuy liggéeyandoo loolu moom ñu ko génn moo tax polémique fi dégg itam ñu yooyu duñ ci dugg yooyu kilifa yi ñu ngi koy lijjanti donc vraiment c'est pas notre niveau moo tax man question yooyu du ma ci jamais ma prononcé wu ci maa ci ginnaaw sëriñ bi daal déglu <laughs> déglu ndigal li ma jox keneen ku sëriñ bi joxe ndigal boo ko jëfewut nag kooku moom conséquence bi day dal ci sa kaw yow la soxal ñu ñëw ci travaux euh, corniche bi euh,